tudd El Hadj Alioune Samb di conseil municipal fii ci maire bi comme ni ko suñu nattangoo rek waxee El Hadj Gora Diop deuxième maire noonu la ñu koy waxee yaakaar naa ni euh, ñaar fukki fan ci weeru février 2016 bi ñu génn la euh, président Macky Sall recevoir na la maire Djibril mbay ak nattangoom yi mu àndal fii ci maire bi bi ñu demee euh, le président Macky Sall moom ci boppam moo waxal boppam que ni lii man maa ko doon sàkku tey la ko yàlla dogal li tax ma doon leen woot seen njàmbaarte moo tax am jom bu ma dégg le maire Djibril Mbaye am ko jom takkoom nangoom liggéeyam ba tax mu am nga ngañaay bi mu an ci digg Kajoor wax ni bu amul woon jom amul woon détermination bi mu am du am victoire bu toll ni bi mu am ci digg Kajoor moo tax may liggéeykat man en tant que président soxla liggéeykat ma woo la maire Djibril Mbaye di maire Pekes pour que ñu ànd liggéey ba ñu fay demeet la maire Djibril Mbaye wax na ko ni ko man de sama askan ñoo ma fal ñoom lu ma doon ñooma kon bëgg naa képp ku may àndal di liggéey nga delloo leen njukkal ba ñu xam ni le taxoon ma doon yëngu seen añ daañu ci jot mu nangul ko ni ko incha allahu taala li nga bëgg jël nañ ci nangam jël nangam parce que boobu wax nañ ko problème mu ay piste rurale wax nañ ko ko wax nañ ko ay poste de santé wax nañu ko ay mur collectif de l' école wax nañu ko ay électrification rurale am na fi ay poto yu ñu samp ci village yi ba léegi kenn taalu ko avant les élections wax nañu ko ko mu village euh, yi bon ñu ngi fii euh, ay jamatil mbërlëpp pay-pay saate njingeen bëri jàmm et bëri na bari na bari na euh, comment c'est soixante onze villages la ñu juróom-ñaar fukki village ak benn la ñu euh, kon kooku du dëkk du gox bu ndaw mais li ci gën a am solo te ma koy wax toujours mooy jàmbaar ju mel ni la maire Djibril Mbaye su nekkee ci gox mhm. ak liggéey bu rëy bi mu def njàmbaarteem may ko ko parce que ki nga xamante ni si mooy géwélam ci single bi mu defoon mi ngi ko ciy wax su dëj amee yaay teew su ngénte amee yaay teew su leneen amee yaay teew looloo tax mu am mérite bi mu am ci Kajoor kon la président Macky Sall war na yëg bàyyi xel jàmbaar ju mel ni la maire Djibril Mbaye euh, non waaw euh, bu ñu ko sañoon wax loolu la ñuy wax parce que en tant que président bu ñu toogeek moom toog ki nga xamante ni si tey moom la yàlla dogal mu nekk ci bopp gox bi te ñu nag wax dëgg yàlla duñu ko jëndee kenn nag parce que nag la ñu amul mënul woon démb mënuñu ko bërki démb tey moo ñu ko mënal kon du ñu ko jëndee kenn kon euh, la président Macky Sall bu toogee maire bu toll ni Djibril Mbaye mu wax ko lim ko wax depuis neuf mois gis ñu lenn ci lam ñu waxoon ah no mooy le président wu tous les sénégalais nag mais nag ba léegi gisaguñ lam ñu waxoon waaw parce que bi ñuy dem plan plan d'action lañ fa yóbbaale lii ñuy wax lépp ci benn document lañ ko def jébbal ko ko moom moo jël ay engagement am ni lii nangam nangam nangam dinañ ko def très rapidement li ci des daañu ko uti mais depuis neuf mois la mu ñu woon daañu ko def gisuñu ko sax bay gis la mu ne woon daañu ko uti. kon PKS daal dañ leen a fàtte. moom dañ ñu dañu dañ ñu fàtte te am nañu yaqin bu wér que ni ki nekk tey ci bopp askan wi muy la maire Djibril Mbaye PKS jaral na ko moom. guddee ci àll di fa fanaan ba kenn du ko fàtte te incha allahu taala dana taxaw moom ñu nekk ci gannaawam ba ku fatte woon pekke si di nga ko fàttali. xeex ay xëccante nit ak waaw mais xam ga xeex moom boo nee xeex rek ñaara ko seq wala ñett mbaa mbooloo kon mënul ñàkk ay nit ak nit donte du ñu tudd nit mais ku am victoire yaakaar naa ne am na ko def am ku defet ci sa wet waaw foofu al isaaratu takk fii junj moom doy na borom xel waaw. waaw en tout cas li ma la bëgg wax mooy noonu am nañu pas-pas ak détermination bu wér que ni képp ku ñu bëgg jëndee képp ku ñu bëgg a jëndee la maire Djibril Mbaye ci gox bi ñu bàyyi kooka ak loolu jàpp ci suñu meer parce que moo ñu mënal lu ñu mënul woon démb. waaw euh, bi li ma bëgg a wax rek mooy euh, dafa am référendum bi passé parce que ñun bi ñu toogee ak le président. wax ko ni ko noog suñu maire Djibril mbay pare nañu pour jàppale la def na nañu jéego bu ko wér que ni jàppale nañ ko parce que référendum bi passé dañu ñëw ànd ak la maire wër suñu 71 villages yëpp gagné gox bi Macky Sall ñàkkoon ci élection présidentielle ya ñàkkoon ko ci élection maire yi ñu fexe ba référendum yi mu teg ci loxaam grace à monsieur le maire nag Djibril Mbaye kon kon kon kon ñun du ñu def lu dul delloo ko njukkal di ñaan le président Macky Sall mu joxal ñu ko njukkal xamal ñu gëddaam parce que nag fii lañ dëkk ci Kajoor Pekes laa dëkk diggante Mbul ak Jaaj ak Sugeer doy na sëkk dëkk Sugeer euh, muy séddale cër te depuis lool gisuñu mu sedd ko sedd nag dëgg la mais jaadu na ki tax ñuy wax majorité ci gox bi nag moom la président na ko fàttaliku ba xam ni li mu am kenn mayu ko ko kudul askan wi te askan wi ñu ngi ci gannaawam li mu bëgg rek la askan wi def. waa mais bu bu ko joxee cër rek moo ko teree neex moom président bu subaa bu joxañee du ñu dagg mais gisa bu ko joxul cër nag bu ko joxul cër a ah, ñu taxaw jàpp suñu njàmbur ànd ak suñu maire dellu fa ñu taxaw rek jàpp suñu njàmbur waaw conseil municipal de Pekes Dieye Touré DIE maay waxal soxna yi waaw soxnay Pekes yi soxnay population de Pekes ñooy nuyu président Macky Sall di ko xamal ne ko ba monsieur le di ñëw bàyyiwuñu ginnaaw dañoo ëndaale woon bi ñu demee bi muy wax soxla yee itam mu ne jigéen ñi wax leen seen soxla ñu ni ko ñun monsieur le mi moo nu ñor ndax moo ñuy jàppale moo ñuy jàppale ci moo nuy jàppale bon képp ku ko dooleel rek ñun nga dooleel ndax monsieur le maire moom ko ko dooleel mu jàppale nu ko dooleelul li mu amakus nii dinañ ci jàppale mu mu daal ne yéen jigéen di pekkes dinaa leen jàppale bu baax a baax a baax moom président Macky Sall dinaa leen jàppale ci li ngeen di liggéey ndax ñun dañuy commerce dañuy sàmm dañuy bay dañuy suub lépp liggéey bu jigéen di def ñoo ngi koy def te monsieur le maire rek la ñu gis ci ku ñuy jàppale nag bon bu nu yóbboo ba ca président la république muy waxtaan ak moom ni ko dinaa jàppale jigéen ñi Pekesse boobu ba léegi wax dëgg yàlla jàppale wuñu looloo tam ñoo ko koy soññi sunu jafe-jafe mooy ñun sunu jafe-jafe liggéey mooy suñu jafe-jafe sàmm suñu jafe-jafe mbay suñu jafe-jafe li jigéen di liggéey rek financement bu ñu liggéey rek amagu amaguñu benn financement moom loolu laajoon na ma ko sax man ko ñun amuñu benn financement mu ne bu soobee yàlla balaa yàgg nañ leen financer boobaa léegi nag juróom-ñeenti weer gisuñu dara. boobaag léegi gisuñu dara ñoo ngi jàpp nag ci monsieur le maire ku jàppale monsieur le maire daal ñu jàppale la ku jàppalewul monsieur le maire it ñun monsieur le maire la ñu am rek noo ngi ci ginnaawam waaw